mbokk yi am mbégte kontaante bu baax a baax pour ñu ñuy suivre ci ETDR Média ak li ci réew mi ak Thioker TV di leen nuyu saa su tey nag ñu ngi fi nga xam mooy Géejawaay seet si le grand champion muy Ndiaga Dolé nekk foofee ci école de Ndiaga Sarr ñu gis keroog mu génn ci combat bu amoon solo ci carrière am doxoon ci diggante ak Doudou Sané ñu gis combat bi ni mu demee ñu toppaloon ko début à la fin ñu ngi toog nag ki nga xam ne mooy Ndiaga Dolé balaa ñu koy nuyu bu baax a baax suñu àll borom Bambay borom bitel bi xamante ne bii moom macha allah waaye di nuyu sunu grand Zal Oni ak mooy Moussa Mbour ak ñu fi nekk ñëpp ah dañuy bàyyi njëkk mu nuyu su ko defee ñëw si waxtaan bi njëkk maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la fay di laa bañ sant yàlla julli seen bi sant suñu ñaari waajur di ma sëriñ Bay ñëpp yàlla bàyyi leen fa suñu kanam kanam kanam di ziar waa Nguraan di ziar waa Ndeer Naar Ndeer kenn waa Ndiassane waa Touba waa Tivaouane di ziar ahlu këru diine yëpp ñu ngi leen di ziar lañ ngeen seen waa waay waaw balaa boobu tamit ñuy def ñu naa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun di jaale Aziz Pambaay suñu xarit numéro deux Pambaay numéro deux yaayam daa wàcc ñu ngi koy jaale seen kër lañ ko war a yóbbu si armeel yi ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko àjjana si bis tay jii di ndokkal tamit suñu mag liiru jaañ si drapeau bi nga xam moom lañ ko tuddee mais ku ne gis na si ñu jóge ak xat-xat bi léeg moom moo tax. ak rob bi ñu war a dem nii mais suñu xel ak suñu xoteer yëpp mu ngi foofu noonu. moo xam ne lu mu nekk ñu ngi si ndax moom suñu lépp la. waaw di ziaraat tamit fi ma fekk nii sama waa koñ seen fay maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp. di leen jégluwaat di leen baalu àq di leen masawu. waaw ku si mel tamit suñu grand Zal moom suñu lépp la day sonn si ñun di waaw bàyyi temps lépp mu koy def si ak suñu frères yi nga xamante ne ñoo nekk si koñ bi ku dégg lu teg si ngoon ñoo xamante ne buñ jugee yu jub lu ñu nekk suñu ñoom dañu leen teg coono boo xamante ne mënuñ leen ko xooy wax dëgg yàlla dañu leen ne baaluwaat ak leen masaw ndax dëkk ak mbër dafa métti quoi chaque jour dañu leen teg coono di leen déranger di leen teg loo xamante ne wax dëgg yàlla amuñ seen ko quoi dañ leen di jégaluwaat leen masaw waaw di wax nag instant bi nag comme que li nga xamante ne am na loo xamante ne passé na. Mm. dañoo dëgmal loo xamante ne moom moo moo ñu gën a ñor quoi. Mm. waaw mu nekk journée bi nekk suñu kanam mu nekk le deux. Mm. ñu ngi préparé wut nekkaat di benn préparation la amuñ jot noppalu ko sax. waaw lii daa mënul ñàkk rek pour improviser wu. mais tamit bàyyiwuñ sax tegaat nañ ci si entraînement yi xam ne mooy loolu ñu ngi waajawaat le deux bu baax a baax. am na solo balaa ma ñëw ci le tey kenn comme ni nga ko waxee rek muy Pape mbay ak Pape Mbaye nekk école du Mor Faram ku ne xam ne ni jël na combat digganteem ak euh, Dame waaye si diggante bi delluwaat na foofee ca Espagne tey ñu ñëw annoncé ñu ni kat dafa ñàkk waajuram bu jigéen ba ñu war ko denc tey foofee ci armeel Pikine ci takkusaan bi di ko jaale di ko masawu bu baax a baax ak képp kon bi rek ci njabootu làmb nga bokk mais njaga da ngaa dugg ci kalaaf bi nga dugg ci kalaaf lan moo la dugal ci kalaaf gëj a bëree la wala jàpp ne ñi nga nekkal ci di kalaaf yàlla mun la wala. waaw kalaaf yi moom ñun moo ñu ci dugal. bëgg a ñëw ci classe wane suñu rek waaw. amoon ah, tamit yéen tamit comme li suñu morom bi rek ñëw jël classe bi ah. Hmm. nekkaat ci lu ñu leneen nekkaat ci ñun gëm-gëm boobu lañ am. Hmm. te ambition moo ñu dugal ci classe bi. Hmm. waaw loolu moo ñu ci dugal ngir ñëw rek wanawaat suñu bopp. classe <laughs> bi mu nekk yow sa diggante Doudou Sané ak euh, Garga 2 ak boo Diakhao sa première sortie nga waroon am Doudou Sané nga blessé deuxième bi nga ñëw bëri ak ki nga xam te mooy boo Diakhao nga daan ko. Ndiaga commencé dund yaakaar ndax mi ngi am ci position bu baax sa deuxième euh, combat nga am ki nga xam mooy Doudou Sané combat bu nga xamante ne bi àdduna ñu ko doon xaar doon ko waxtaanee muy yow ak moom ndax su ma juumalee bëri ngeen boppat am foo leen jaar yee ñaar ñu gis ngeen ñëw ci arène bi ñëpp di ko xaar di ko yàkkamti mais ñu gis keroog lu xew Kaolack sa diggante ak Doudou Sané est-ce mën nga cee ñëwaat. waaw lu war a am la rek xam naa ne day am. daa laa ko laal bésu am bokkul ak bésu dañ koy dañ koy félicité rek comme que moom la yàlla may ndam suñu kaw. dañ koy félicité bu baax a baax di ko ñaan yàlla ndam yàlla na ko jig. mais teewul ñun daal li ñu war a nekk ñu ngi si am problème quoi bëri nañ ba pare suñu borom may na ko ndam. dañ koy ñaanal yàlla yàlla na ko ndam li jig quoi. ñun ñu ngi waajal échange Garga 2 la 2. si lañuy ñuy concentré wu si la ñëw ndax léeg-léeg bëri ji génn day métti quoi. day waaw te léeg ngay génn si ay génn yoo xamante ne tamit doo comprendre waaw day métti trop li si laxas yëpp doo ko mën a tekk di ko wax na nga dem tamit làmb ji demee ni mu demee waaw da ngay dolliwaat lépp rek boole loo neexul la naqari sant yàlla ndax suñu borom mooy maye mooy xañe waaw te li fi am boo la gis ñàkk keroog gis nga noonu la suñu borom tuddee woon affaire yi waaw noonu la ko suñu borom dogalee noonu lañ ko nangoo rek voilà da nga ñëw ci biir làmb ji njaga da nga yéex a dugg ci biir làmb ji sa adversaire ñëw na ba nekk ci ay bagage am bay am temps de récupération njaga a ñëw ci biir làmb ji lan la sa yéex a ñëw tegtal la wala lan la non génn moo métti rek souvent yow fa ngay jugee ak fa ngay ñëw stade bi yoon bi day xat yoon bi dafay xat camion yi dañ lay aaye souvent yoon boobu noonu waaw daanaka zone industrielle la camion hmm. yi daanaka boo xësee départ boo départ quatre heures boo amul chance balaa ngaa dugg Kaolack jóge Fatick ñëw Dakar moo gën a yomb jóge Fatick dem Kaolack hmm. ndax camion yi foofu dañ lay fatt dañ lay téye hmm. daanaka ba ngay départ di génn hmm. ba ngay yëg see daanaka ay dix-neuf heures ay quelque ay vingt heures ngay soog a yegg Kaolack nekk toogaa si oto bi yàgg si kii bi daanaka da ngay jàpp ne boo génnoon fii mooy loolu waaw mais daal comme que daal yegg nañ ci jàmm tamit bëri nañ ko ci jàmm salaam rek te dara xewut hmm. dañuy doon li gën a sant yàlla rek hmm. voilà te xamante ne foofu dafa métti trop waaw te booy génn léeg-léeg hmm. ay moyens yoo xamante ne doy na da ngay demee say moyens bopp rek voilà moo tax affaire lay demee noonu quoi mais ci biir combat bi mu ñëw arbitre sifflé génn sa diggante ak Boursané ngeen léewtoo brassement de barrière njaga cokkaas duudu cokkaas mais ci biir ñu ci biir xeex bi dafa mel ne sax Ndiaga dem na ba xaw a kaw kii Doudou Sané mais la moo tax tey nga dem euh, soobu ci biir Doudou Sané. waaw mais mooy war a daanu rek. Hmm. waaw bisu daanu moom bokkul ma hmm. dëggal sama bopp ñu weccante ay coup. Hmm. jël na coup mais xam lu mel ni day am ba pare ngay soo comprendre soo comprendre. waaw war a am bu ñëwee rek da ngay xam ne am na. waaw mais na ni góor yàlla dëgg la woon doyanteel. loolu moo ci ëpp solo quoi. ok ñoo nag échangé nañ gis nga erreur am na bu ndaw. Mhm. def nañ erreur suñ borom may na ko ndam. kat àpp nañ am problème. Mhm. dañuy nekkaat suñu war a nekk rek. Mhm. continué waat. voilà. noo déggee gars yi nag jël bi ndax dalaa jàpp rek fàqale rek mu jeex. dama jàpp non demeewul noonu sax c'est que xam nga tamit booy xeex ci kaw. waaw booy xeex ci carrément daanaka tey bii da nga oeuf quoi. tey am na tey noo xamante ne booy xeex nit di sóobu nit pour ray ko. am na noo xamante ne bu la ko xawee mbës rek mën na indiquer ab loolu moo ko waral mais du question fàqat du question kii wala la hmm. voilà ndax lépp daanaka bagarre en l'air si kaw gi la voilà hmm. mais da ngay nit ci kaw concentré wu xeex bi bay kii hmm. mu roccee ko mbas la rek waaw mais loolu moom lu waroon am la rek voilà kuleyaanin am na voilà ndax moom gis na ay sorte mu bari am na mbëri bëri da leen humilier mais bii moom du ko nettali quoi lu war a am am na rek. Mhm. Mhm. dafa mel ni Ndiaga fonkoon na combat bi dafa mel tamit Ndiaga am na tamit lu ko décevoir ci bi ndax gis nañ important bi nga jox combat bi ak bi nga ñëwee tamit li nga indi maa allah ci ay euh, musluwaay pour préparer sa diggante ak Doudou Sané ak ni mu jeexee dafa mel ni am nga ci déception. waaw non c'est que ñun ay jaam ay ay ay jaam lañu rek dañuy nangu ndogal ci côté yëpp mhm. mais nag booy dem xare da ngay jël say matuwaay yëpp nga yóbbu. loolu la rek ñun combat bi mënuñ ko yóbbu foo xamante ne mën na ñëw kii wala laa hmm. làmb ji moom ak ñu la munti ñaanal ak ñu la munti kii yaay dugg ci géew gi hmm. loolu defu ci géew gi di kenn moo la ko fay defal hmm. làmb ñun làmb ñu ñuy dem rek dañ ci amee gëm-gëm suñ borom nag bu ñëwee ndogalam dañu xamante ne lii ndogal yàlla mënuñ ci dara mais ñun ñu dugg si làmb ba génn ñu ne acam wala lii loolu moom du ñu mës a dal loolu moom bu buñ demee ba sentir suñu bopp mhm. ñaantuñu yàlla di génn di sonal benn mbindeef waxuma la doomu aadama yi nga xamante ne mhm. bu ñu xewlee lu ñu munti xew rek da leen di métti trop te ñooñu amuñ seen fay mhm. su ma toogee sentir sama yaram wala ma sentir sama bopp rek dara làmb nekkul si man banaa ko mm. aw sax jot bi billaahi wallaahi wa mm. mais làmb ñi moo toloon noonu rek mm. <coughs> ñu jox ko wàccam ba mu sëkk ñu dem mu demee noonu dañ ciy dolliwaat sant yàlla bu baax a baax mm-hmm. njaga wéetul ci combat bi ndax dañuy gis Doudou Sané Pikine ñëw Eumeu Sène ànd ak moom ànd ak euh, Doudou Sané ñu gis Boy Niang tamit ñëw feelu ki nga xam ne mooy euh, Doudou Sané tey njaga bi mu gesoo gisul maanaam tet ci ci biir géejawaay loolu amul lum euh, yàq sa préparation wala non waaw ndax am na ñu si bari ñoo xamante ne comme suñu ku mel ne suñu père Diaw mm-hmm. daf may woo téléphone di déggante ak man jox ma ay conseil mm-hmm. ku si mel ne suñu grand pa Mama Fall grand Liir Diagne ñoo ñëw dañ may woo téléphone mm-hmm. mais instant bi ay mbëri ba dañu am combat am na loo xamante ne te combat bi si région bi lañ koy yóbbu te suñu koy yóbbu dafa xat le 18 dafa bëri programme le 18 le 18 y a beaucoup de programme instant yi yow am na yoo xamante ne comme que ñun ah, am nañ yàgg nañoo génn te duñ ànd ak kenn mhm. moo tax bu ñu yóbboon ba Kirikoro ñun rek amuñ problème boobu mhm, dañuy dem gérer li ñuy gérer ñëw mhm. <coughs> dem nañ nag ñëw mu demee noonu ndax problème mooy léeg làmb moyen moo koy def quoi waaw te ñun dañoo xaw a ñàkk moyen nag mais teewul gëm nañ suñu bopp ndax kenn dégguñ suñu ñàkk fayda kenn gisuñu si ay détails te kenn gisuñu ñuy dunguru nit voilà mais daal gëm nañ suñu bopp moo ñu bàyyi s làmb ji mais du question am na moyens yoo xamante ne bu fekkoon dañ ko am. Hmm. suñu combat yi bari nañ ko ñàkk. waaw ndax gis nga tey jii da ngay bëri ji amoon moyen muy métti trop. Hmm. mais daanaka buñ lay xañ sax wala ngay kii ay jël yu ñàkk fay da ngay kii. ay quatre appuis ngay gis wala ay affaire yoo xam ne doo comprendre. Hmm. mais jël yoo xamante ne da ngay toog. leer nañ la ko war kii carrément doo ko mos a gis su ñun hmm. mais tamit loolu dara dañ ciy dolli sant yàlla rek hmm. yàlla nañu yàlla gën a suturaal ci ko da boobu noonu hmm. amuñu moyen waaye ñu ngi sant yàlla ndax am nañ nit ñi am nañ ay nit ñu baax ñoo xamante ne dañuy conseillé dañu xelal dañuy dimbali te loolu nag moom moo ëpp ay milliards moo ëpp lépp voilà am na solo ëllëgu njaga yaa ngi waajal la dë ndax tamit du gën a métti si njaga non man xaw ma lu gën a métti man xaw ma lu yomb xaw ma dara man li ma dëgg ma lëg laa gis. man dama xooluma ay lii daa métti xooluma lii dafa neex. Mhm. xooluma lii wala laa. Mhm. sama ambition li ma gëm mooy lu taxaw sama kanam dama koy def dem sama loolu laa gëm ko quoi. Mhm. loolu moo ne si man. leneen luy am nag loolu si si borom moo xam nii lay demee. mais de toute façon li ñu warloo ak suñu adversaire nañ ko def ba mu. xam nga sa adversaire. waaw mais ñun ñëpp xamante nañ. xam nga ci lu mu jugee. si li mu jugee si li mu jugee ñii. kon amuñu ay xalaat boo xamante ne da nga koy def sa diggante wala laa. Hmm. tey jii moom bu toogee jàpp ni moom fi mu toog daa métti ñu fi ñu toog ñoo gën a métti. fu ah. bu bu dee daa nañ fukkam. Hmm. ndax moo ñu jiit si làmb. Hmm. am na yu bëri yoo xamante ne mooy loolu. li ñu waxoon teg jeexal nag instant bi dañoo gën a teg jeexal dañoo dañoo dañoo teg toog di mooy loolu dañoo sànni mbaal instant yi. parce que ah. yónneeg yàlla bi. Ah. waaw instant moom. jàpp rek moo ñu war xalaatuñu yeneen. voilà te làmb ji instant bii nii li ci kanam rawatul fii ak deux semaines. jaratul ay wax ay détails quoi. Hmm. dañuy concentré waat kon suñu entraînement. Hmm. nekkaat si xool loo xamante ne mooy faay. Hmm. fattaat ay turu defaat lii. luñ mënta def suñ moyen bopp ak suñ kii ak suñ garant yi nga xamante ne ñoo ñuy xelal. dañuy dimbali rek. concentré waa def lu ñu war def demaat la deux suñu borom may ñu ndam bu soobee yàlla da nga am na yaakaar ne bu ñu waatee la ci diggante ma Garga deux dina ci jëlee lu ko neex dégguloo ma de man mosuma dem làmb du ma koo xamante ne damay départ di dem làmb di xalaat dara loo xam. mais nag ci ki nga jógee muy Doudou Sané ci ki nga am moo gën a xoteeku moo gën a teng dina ñeme lu métti. waaw mais loolu lépp amu si làmb la rek. waaw. loolu dara. gis nga tey jii. moom ba muy bëri Doudou Sané gisoo Doudou Sané ko dóor mu daanu. ak ay yeneen ak yeneen. Mhm. voilà kon tamit adversaire adversaire la rek. Mhm. làmb làmb la. Mhm. làmb ji nga jàpp ne tey jii moom nga gën a soxla moom nga gën a kii. làmb jooju chaque jour moom ngay ñàkk. ngay voilà mais tamit adversaire adversaire la ñu ñëpp xamante nañu. du fi nekk naan xaw ma ko xaw ma ñun ñëpp xamante nañu si kalaaf bi. ñu bëre mais le deux yàggatul. fi mu jógee na. man maa gën a métti fi mu jugee. waaw gën koo jugee. voilà ndax tamit mooy loolu. Hmm. instant bi nag ay wax amatul dara amatul. Hmm. confirmé dong ko am ñëw réparé sa erreur boo xamante ne def nga ko. Hmm. xam nga ni def nga erreur da ngay réparé li nga war a réparé. dem xool leneen quoi. ndax tamit bu la pay rawee. waaw da ngay jéem a jël deux rek. ndax ñaar ñoo am quoi. pay moo am ak deux. am nga yaakaar nga jël deuxième yow. non man waay sa wax ceer yow. <laughs> mun naa jël sax première. Ah. waaw yàlla jeexul de. jeexul mooy loolu instant daal bàyyi ci kalaaf lañu nekk. Hmm. ñu ngi soog am defar si kalaaf bi. Hmm. te dëgg yàlla mënul ñàkk am na ba pare. waaw loo am ba pare da ngay nangu. da ngay nangu voilà léegi nag instant la suñu kanam la leeral rek dem suñu yoon. Hmm. am na solo solo slogan bi génn bi nga génne lan la. waaw damaa jël démb combat yee ko laaj wala ah, la dañuy jël démb xam nga ñun buñ jëlee démb dañ koy indi tey jël tey yóbbu démb yóbbu démb non doxalee du dara euh. mais xam nga gis nga daanaka dafa daanaka Kaolack moom ah. <laughs> da jaay naan raison dëgg la ah. da ngay dem ba foofu ñoom xam actualité bi nga xamante ne mooy mooy xew bi Dakar ah non ñoom actualité bi ba foofu dañ la war a mise à jour quoi billaahi lu bari da leen raw euh. da ngay ñëw gaan indi sarme indi bëgg a dundalaat kii amateur kii aar neexal mais dafay fekk ay géwél yoo xamante ne nag <laughs> jamonoy ba tey ñu nga fa instant eh. affaire yi dafa dépassé foofu quoi voilà affaire dafa dépassé foofu hmm. suñu combat bi tamit ni ko Dakar soxla woon ñu jël ko tamit sànni ko si région yi tamit hmm. loolu tamit ça pose beneen problème beneen problème waaw comme am na combat yoo xamante ne sa waay hmm. buñ ko soxlaa fii war a rayante fii nañ ñu bàyyi ñu ko fii bàyyi leen ko fii ñu ko sànni ko si ay raison yoo xamante ne combat bi saful yàpp saful jëpp kon su ma la déggee kon euh, njaga mer na waa Kaolack waa Kaolack mënu ma leen mere ah. ndax Kaolack suñ Kaolack la Kaolack ñun ñëpp Carrefour la rek ñun ñëpp dañ fay dem am naa fa ay mbokk am naa fa ay lépp hmm. di ñaanal yàlla sama mbokk yi nekk foofu noonu hmm. waaw sama rax papa yi nekk foofu ak kii yëpp maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp dañ jox seen waajo waaye ak waa Fatick hmm. waa kenn si àll bi waa Saloum waa war jaxal ñoom ñëpp waaw ñooñu awma seen fay ndax dañuy taxaw si ko dé bépp mais daa am ay combat soog yoo xamante ne ah. Dakar lañ koy soxlaa. lañ koy soxlaa fii mooy ampleur. Mhm. fii lay ëpp loo xamante ne lay war a gérer. kon yow li ñu yóbbu combat at ci àll bi neexu la. mais damay dem rek bu ñu demee ba Kinikoro bu ñu demee ba bu ñu ko yem Doudou Sane damay dem bëri man di yaakaar ay nit mhm. war a am day am ala kulli alin. gëmuñ mhm. mais lu ñu war a def ñun dañ koy def bu duggee si géew. ñun amuñ ay problème ay mi nii la mel ak. kii daa weex ak kii daa ñuul amuñ boobu bu ñu xësee takk ngëm bu dugg si gémmam lu ñu war a def dañ koy def hmm. suñu borom nag bu ñuy ay dogalam dañuy nangu dogal nekkaas ñu nekk waaw foofu lañ tollu nii am na solo kontaan naa ci yow waaw di santaan rek waaw di santaat sama waa kon baax a baax hmm. Hmm. waaw amuñ seen fay coono gi ñu leen teg dafa métti quoi ndax ku ne xam na ne far daa métti boo dugg see fii daanaka xale yi coono ngay teg xale xale boo xam ne xamul dara jël lépp bëgg ñoom coono gi rek dafa métti amuñ seen fay suñu moroomu yaay yi suñu moroomu papa yi dañuy da ngay da ngay leen woon ginnaaw dem buñ lay seeraan sax duñ mën a toog duñ mën a taxaw loolu dafa métti amuñu seen fay sama mhm. waa koñ sama moroom yi fi nekk mhm. ñi nga xamante ne ñoo maase ñi nga xamante ne samay morom lañ ñii samay morom raq di sonn si man guddeeg bëccëg aw ma seen fay mhm. billaahi boo limee tey da ngay juum mais ku ci mel ni suñu xarit suñu àll borom Bambey suñu waay suñu lépp la moom borom bi ñu jàppale si côté bépp dañu conseillé. Mhm. te loolu yombul ko waaw mënoon na toog suñu toog rek kii mais yàlla da ko boole ak ñun. mu nekk nit ku baax koo xamante ne daf ñu jàppale si lépp. su mel ni tamit suñu waa écrit. Mhm. waaye ko loolu Ndiaga Sarr yëpp aw seen fay. Mhm. ndax ñoom ñëpp génn nañ taxawu nañ ñu soutien ñu. ñu ànd def li ñu war a def. suñ borom ñëwoon ndogalam dañ koy nangu bu baax a baax a baax a baax. seen fay rawatina suñ coach élage coach Mbis Baye Fall. ñoom Oudou Taya ñoom ñëpp ñi nga xamante ne ñoo nekk membre staff école bi. Mm. amuñ seen fay. Mm. suñu grand zal mii nag. Mm. dañ koy bàyyi ak yàlla. daa ndax moom xewul fii benn mbër bësam. Mm-hmm. nga nekk mbër nga ñàkk mbër boo ñëwee tey jox ko sa nopp. dina wax loo xamante ne bi foo ko toppee. Mm-hmm. doo si am lu metti mm-hmm. ndax ñun koñ bi fii kenn bëggu fi defet ñëpp a yem. ñëpp ay bañkat lañ. barke yonent bi. bu dara amee sax da ngay da ngay génne bëgg a siggi xool nit sax boo nekkee bañkat dëgg loolu dal ndax koñ bi ay bañkat ñoo fi dëkk ndax mhm. fii mooy ONU fii mhm. koo xamul dégg nga ko te boo ne ONU ne jobal benn bi la mhm. ndax ñaari jàkka yi ngay teg boo déggee naan géejawaay jàkka ira irak ñoo nekk nii ngay gis ñaari jàkka yi nii fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee daanaka fii lépp da ngay nekk bañkat mooy tax nga dëkk si koñ bi barki yonent ci yàlla bi kon am na yoo xamante ne bu amee ba pare day toll mais dañuy toll rek di solliciter ku si mel suñuy grand yoo xamante ne dañuy yàgg jàppale suñuy génn bu dëgg bëccëg subaa ngoon mhm. ku si mel ni may sant yàlla boutique suñu waaxit la suñu lépp la dañ koy mhm. sant bu baax a baax ñi mhm. nga xamante ne mu ngi Touba waa Touba kan ñoom Talla Jaw ñoom jaw ko ko yàlla dañoo boole ñoom jéy seen dañ koy woo dañ koy yàgg a woo suñu combat yi ñuy dëgmal suñuy jëm pour mu ñëw di ñu jàppale ndax suñu lépp la ku si mel ni Moutala Seck ñu amuñu xaar ñu nag moom nekk fi waaye ñu ngi déggante bu baax a baax a baax a baax ñu ngi dégg malaat nag la deux juin bëgg nañ ngeen ñëw jàpp si ñu am mobilisation bu dëgër boo xamante ne combat bi ñu ñëw soxla nañ ko trop côté boobu bëgg nañ ngeen taxawuñ si baax a baax ndax ñu amul njurul yéen ku si mel ni Omar Gueye ñu frère amuñ seen fay dañ ñëw di jàppale ndax ñun amul lu dul ñoom képp koo xamante ne yaa ngi taxaw di jàppale Ndiaga Dolé Ndiaga Dolé da lay sant la gërëm mhm. mais am na ñoo xamante ne mun ma leen fàtte ku si mel ne yeeya sama rakk la yeeya Dubaay mhm. moom moomoon Moussa an mhm. sama ñaari pour yooyu ñoom bu du woon ñoom dinañ ñaaw ci côté bu bari ndax ñoom mooy soutenir koo xamante ne dañuy bàyyi seen lépp nekk sama accompagnant de guerre ku ma nar a dee ñu dee fa ku ma nar kii ñu kii fa kon ñooñu aw ma seen fay yeeya ak bi ñaar ñooñu aw ma ndax dañ may ma jàppale si côté bépp di sant nag suñu waa kër bu baax a baax waa koñ bi bàyyiwuma kenn kër yi nga xamante ne ñooñu jël coono ak ñu leen teg ñëpp maa ngi leen sant sama koñ waa goro yi ñoom ñëpp maa leen sant bu baax a baax ndax tamit far dafa métti waa parcelle am na seen fay suñu waa daara yi nga xamante ne ñoo bokk daara Njaasaan bi ñu wax pàccendoo ñooy dóorandoo bi dañ lay dugal si ay message si groupe bi di la encouragé la ñaanal yàlla di la kii mm. gis naa ñaan yëpp mm. réew mi fépp foo xamante ne ñu ngi toog di ñaanal njaga njaga mu ngi leen sant leen gërëm mm. rawatina waa jurum nag Cheikh Daouda Ndour kooku aw ma fayam sama xarit la moo waajal lépp lu war si man moo ko def mm-hmm. sama regroupement beeg lépp moo ko géré aba j soxlawul sama dërëm te lépp dama koo defal defal boo xamante ne boo gisee da nga xamante ne yéen a la defal billaahi accueillir ma gan bu fa ñëw mu accueillir la teg la si condition bi bien mhm. gars yi nga xamante ne ñëw nañ si regroupement bi ñoom ñëpp kenn amu ci problème mhm. lépp loo xamante ne war na ko barke yonent yàlla bi defloo na ko ak ñun ba mu jeex tàq mhm. dañ koy ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko fi ba mu eggaleeg sagom di ziar papam bu baax a baax ak seen waa kër ak ay soxnaam ndax taxawu nañ ma si côté bépp ba ma demee foofu bàyyi ma mu wét benn yoon sama patron nag bàcc logaan dama koy ziar bu baax a baax moom tamit mu ngi dëkk Diouroup di ziar yaayam ak ay magam aana sangoor ñoom ñëpp hmm. waa jurub nduur nduur waa jurub bu mag jurub marché jurub daafeem hmm. ñoom ñëpp amuñ seen fay ndax ñoom dañuy jàppale ko bu ne hmm. di sant waa ngar jàmm tamit di sant waa ndóofar rawatina suñu xarit waagaan dañ koy ziar bu baax a baax di ko jox wàcc waayam ndax amuñ fayam yaa ngi bëgg ñëpp daal di ziar daal képp koo xamante ne yaa ngi jàppale si combat bii di la wax maa ngi dëgmal la deux aw ma temps récupération aw ma noppalu ko mhm. nag am na ab dem nañ tey suñu borom xañ nañu mhm. yàlla mi ñu xañ tey ëllëg moo ñu joxaat mu ngi nekk li ñu war a nekk gëm ko mhm. jàppaas li ñu war a nekk di woo daal waa koñ bi ñëpp di leen baaluwaat àq di leen jégaluwaat ndax li am am na ba pare awma loolu mooy loolu mais daal de toute façon le lu ñu soxla la ñëw leen génn jàpp ci ñu dem jëli ko indiwaatale leen ko si koñ bi. incha bu soobee yàlla. jaajëf kontaan naa ci yow. bëgg naa si yéen yéen ñëpp merci beaucoup. loo koy tëjee. waaw Thierno dañuy santaat yàlla rek. waaw dañuy santaat yàlla bu baax a baax. Mm-hmm. di leen sant si acte yi ngeen def nii. Mm-hmm. di wax xaaloo inna lillahi